xibaar yi ci RFM une di benn waxtu ca place Washington ak ca cité kër góor gi ñu dikk génn ci xibaar yi. El Hadj Ndiogou li ci gën a fës ministre de l'intérieur ñaawlu taal gi ñuy taal ay kër ak oto jàmbur fan yi Antoine Diome xam na ne nguur gi taxaw na temb ngir dakkal jëf yu ni mel rax si dolli nit ñu bëri jàpp nañ leen gannaaw li xew demb ay kàddoom ci ndorteel xibaar yi mu fekk taal yooyu di wéy yi ci mujj di makkaanu Pastef ak kër ay Aïda ca yemook nag jumaay Sacré-Cœur Tendé Kër Matar Ba kenn julli fa démb ba léegi ndax yàqu-yàqu yu bari la fa am laale sax ba dem ba sax karbiyaar bu euh, jumaa ja coow li ci réew mi Alioune gis ne foog waa Union africaine ak CEDEAO dox ci wax ci laata làmbaay di ñaaw ndaxte situation bi garaaw na lool ay kàddu Alioune Tine ci xibaar yi fatt gi ñu fatt kër Ousmane Sonko kenn du dem kenn du dikk mënul dem mënul dikk moom tam loolu nag kii di taskatu xibaar bi di Daouda Mine ne teguwul ci yoon te jàdduwul ndax lu ni mel boo koy def da ko war a yëgal nit ki ba mu xam ko daañu teg xibaaru bitim réew xibaaru tàggat yaram nit yi yéene yi laata ñuy jeexale gis-gis ñuy waxtaan ay fitne ci yi am fan yi ci Sénégal mu nekk li gën a fas ci xibaar yi ne sunu leen ci ay faram-fàcce Alioune Ba moo nekk ci machine bi mbokki ñi leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futurs Médias xibaar diggu bëccëg yi dañ koy door ak ministre bi ñu dénk wàllu biir réew mi Antoine Diome di naqarlu taal gi ñu nemmeeku fan yi ay këru euh, kilifa ci nguur gi nag nan tam ay kilifa ci opposition bi nee na nag loolu jàdduwul te taxaw nañ temb ngi daal dakkal ñu mel nee na nag euh, fitna yi nga xam te ne am na fii sax fan yi euh, jël nañ ci matuwaay te nit ñu bëri Antoine Diom ci jokkoom Mohamed Ali Mouba. Euh, di wax ni gis nañ ni demb ak légui en tout cas ci ngornu demb ak ci ci guddi gi am na ay manifestation yoo xamante ni am na euh, li ci ëpp lu ñu ràññeeku fii ci Ndakaaru ak tuuti fële ca région wu Thiès euh, bu ñu xayma gis nañ ni ay nit dañuy génn euh, tal ay pneu daw wala ñu dem ci këru nit jëm fa yàq dara waaye gis nañ tamit ni dem ñu attaqué këru yenn ci membre gouvernement bi ak yenn ci membre majorité bi gis nañ ci guddi gi ni am nay membre opposition yoo xamante ni tamit attaqué nañ seen kër réew du doxee noonu lépp li ci war ci matuwaay état bi dina ko jël. monsieur le ministre fan ngeen toll ci arrestation yi. alors ci arrestation yi Mouhamadou Alimou depuis démb euh, yoon euh, am na lu mu activé euh, police ak gendarmerie ñu ngi ci terrain bi depuis démb Dakar ak ci région yi am na ay arrestation yu bari te arrestation yi am yëpp ay nit la yoo xamante ni ñoo doon woote ngir euh, attaquer ay këru jàmbur wala ñoo xamante ni sax ñoom ci seen bopp ñu ngi woon ci terrain di attaquer ay këru jàmbur am na ci ñoo xam ne fekkee nañ leen ak ngànnaay am na ci ñoo xam ne fekkee nañ leen ak cocktail molotov am na ay kër yoo xamante ni sax dugg nañ fa fekk ñoo xamante ni dañ doon defar ay cocktail molotov jël nañ ko hum, euh, ci ci loolu euh, am nañu ne li ko waral mooy blocus këru Ousmane Sonko bi jaarul yoon amul benn kay kayit bi koy firndeel euh, lan ngay wax ci loolu. waaw xam nga euh, Mohamed Aliou. Euh, dañu nekk dans un état de droit yoon ni muy doxee mooy bu ñu gisee ni am na loo xamante ni mun na jur safaan mën na indi ay jëye ci réew bépp matuwaay boo xamante ni war nañ koo jël ba loolu bañ a am dinañ ko def jàpp leen ni maintien de l'ordre ñaari tànk la prévention ak répression. dernière question bi mooy euh, appel à l'insurrection boo xamante ni euh, ñenn ñi gis nañ ko euh, ci réseaux sociaux yi surtout certains de nos compatriotes yi nekk ci bitim réew jarul ñu leen tudd fii di def ay live nee nga da ngeen di jël ay matukaay ci wàllu woowule su boobaa ñu xool nu ñuy def pour peut-être jàpp leen. waaw xam nga Sénégal ñun ñoo ko bokk benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar damay wax ni amul kenn koo xamante ni yaa ngi bitim réew tey di woote ngir wala ngay jox adresse nit wala ngay yónnee xaalis pour di wax ni jënd leen essence tal leen def leen ni yàq leen te gouvernement bi du jël matuwaay ngir dëkk ba nga nekk ñu yónnee fa ay bataaxal ngir demander leen ni ñooñu nekk ci réew yooyu li ñuy def di yàq fii ci biir réew mi ñu topp leen ci réew ya ñu nekk ñu nekkoon euh, ministre euh, Antoine jom ministre de l'intérieur euh, ci waxtaanu yaawu seq RFM mu doon waxtaan kon kii di Mouhamed Alimou Ba wax nañ ko sànq fat gi ñu fatt Ousmane Sonko nee na li ko waral mooy wàllum karange ci réew mi ki nga xam te ne nag mooy Daoud Mine di chroniqueur judiciaire moom daal di gis ne loolu jaaduwul ndaxte nag lu ni mel boo koy def nit da nga koy firndeel ci kayit su ko defee nag bu bëggee def ay recours mu mën ko def ñu teewlu ci Mine liberté dafa nek lu nga xamantene ne moom principe la conscience au conscience bu Sénégal nga xamantene moy mooy charte daf ne nit ku ci nek am nga liberté bu nga xamantene mën nga circuler librement mën nga dem fu la neex nit ñi mën na ñew seet si la loolu principe mais dañ ne principe bobu nak nekk nekkul un principe absolu manam bu fekkee ne ordre public dafa nek lu nga xamantene ne sa génn bobu euh, mën na koo nasaxal wala mu nek lu nga xamantene ne sa génn bobu les bonnes mœurs dafa nek lu nga xamantene baxu baaxu ci donc sous réserve de l'ordre public et des bonnes mœurs liberté bobu war nañ mën nañ ko restreindre moom mooy foofu la ñuy invoquer par exemple la nécessité du maintien de l'ordre mais li ngi ñu war a comprendre mooy liberté boobu nga xamante ne constitution moo la ko jox bu ñu demee ba war koo restreindre mais dañ la koy notifier par la voie administrative bu fekkee ne préfet moo jël décision boobu dañ la koy notifier et joxe ay motif yi nga xamante ne moom moo tax ñu wala ñu war la empêcher loolu wala bu fekkee décision de justice justice la ñu def la résidence surveillée décision de justice la dañ la koy notifier de telle sorte que li nga xamante ne yoon may na la ko moom mooy nga def ay voies de recours nga mun koo def bu fekkee wax nañ ne moom moo tax ñu restreindre say liberté yow am nga possibilité yow tamit nga saisir les juridictions compétentes la chambre administrative de la cour suprême pour dire que lii euh, excès de pouvoir la ñu ngi commencé di jël décision yu nga xamante euh, di restreindre samay liberté ànduma ci je veux ngeen àddu mais boo jotul nag kayit bi nga xamante moom moo leen notifié loolu kayit bu nga xamante jógul ci administrative euh, autorité administrative kayit xibaar nekk chroniqueur judiciaire jiite tam euh, site d'information bi di IGFM dañuy dem ba foofa kër Ousmane Sonko daanaka ni ñu ko waxee yoon yëpp ba léegi dañ ko fatt alkaati yi fees fa dell kenn mënul dugg kenn mënul génn dañuy dem fekk fa suñu reporter ba fa nekk jamono ji Boubacar Dieng Boubacar ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay El Hadj ndax mbir yi na wala na woon fa woon ba léegi. Euh, mbir yi nag euh, bu soppeekoo tamit tuuti lay doon maanaam daal. fi mu toll nii am na ñoo xam ne ñu ngi dem a ko dikk waaye nag ay suyep ay marchand ambulant la ñuy liggéey fii wala ñi nga xam ne nag ñoo dëgg cité kër góor gi moo tax nag booy dugg fii nii foog nga wax yow daal fan nga jëm ak lan mooy say tànk lu doo tax a jóg boo xoolee bunt bi nga xam ne nag moo jëm cité dugub biir cité kër góor gi euh, foofu déjà am na barrière yu ñu fa teg ay takk der nekk fa comme ni nga ko waxee léegi waaye nag fi nga xam ne soriwul fi ñuy jàddee pour dem kër Ousmane Sonko foofu am na beneen barrière bu fa nekk ay policiers yu bari nekk ci biir daanaka war na mat euh, lu toll ko moo xool ñett li nga xam ne nag moo di camion euh, police yi fa taxaw a ay pick-up tamit waaye fi nga jàddee tamit pour mën a jubal directement jëm kër Ousmane Sonko foofu dañ ko bloqué ak benn euh, véhicule blindé boo xam ne bu police la mooy seen oto yu ñuul yooyu moom lañ fa gaare mu daal di fàttu yoon boobu boobule boo buggee juba la ñu naan nga wiiri jaar beneen côté ba te ba demee tamit dañu naan nga wàññeekuwaat ah, ndaxte fii mënoo faa yegg donc fi mu toll nii loolu moo am fi nga xam ne moo di si kër góor gi hmm. journaliste nag dañ leen tere ñu yegg ci fi askan wi mën nañ fee dugg muy jaaykat marchand ambulant yi wala ñu ñeneen ñi waaye journaliste yi amul kenn ko xam ne daal am nga droit dugg file ndaxte bu ñu xamee ne journaliste nga rek dañ lay dàq pour nga génn si bërëb bi hmm. ñu ngi doon wax sànq ne avocat Ousmane Sonko yi dañoo bëgg ñëw foofu noonu daal di koy seet si euh, mbir mi nu demee Alors, c'est confirmé parce que léegi nii rek a même pas 5 minutes euh, woo naa kenn ci avocat mi mu confirmé ni moom mu ngi ci yoon bi déjà bu ñëwee wax na ma foofu mu bëgg a jaar donc nee na lay ñëw bu ñëwee rek na ma woo. Hmm. comme ça ñu dem xool daax nañ leen bàyyi ñu dugg tey ji dina am déet. incha allah jërëjëf Boubacar Dieng en direct kon la ca cité kër góor yi avocat Ousmane Sonko kon war fa dem euh, seeti ko gannaaw bi nga xamante ne boobu ba léegi kenn seetiwu ko ku fa dem nag euh, doo mën a yegg ci moom ndax yoon yu ñu fat euh, kon ñu koy gërëm en direct kon Boubacar Dieng lañ ñu àndaloon mu fekk nag jamono joju makkaanu Pastef nekk fii ci VDN bi ay nit nag daal Kay songu daal di koy eh, taal nag eh, tey ci fajar gi eh, ay cocktail molotov nak leen daal di jëfandikoo daal di koy taal dañ ci déglu kii di El Malik Ndiaye di kin joko jokkoo gi ci Pastef ci jokkoom ak Babacar Fall siège Pastef les patriotes dañu ko song ak ay cocktail molotov taal ko waaye tamit eh, kii di suñu eh, frère mi Waly ba Bodian bi nga xam ne moo yor lépp lu jëm ci kaaraange président Ousmane Sonko te nga xam ne dañ ko def sous eh, résidence sous surveillance électronique moom tamit sànni nañ ay cocktail molotov këram démb ci guddi te ñëpp gis ñi nga xam ne ñoo fare ca geneen langue ga doon yónnee démb ay message di ko dugal réseaux sociaux di joxe suñu ay adresse di làqatuwuñu di wax ne dañuy attaqué suñu ay kër te ñoom tey li ñu gis mooy kenn du leen laal kenn du leen jege def dafa eh, méngoog li nga xam ne moo arrangé eh, Macky Sall ak ni mu àndal lan moo tax ñu am ñaari Sénégal lan moo tax yoon nekk fi pour ñii nekkul fi fu ñu ku faree ci langu Macky Sall lu la neex def kenn du la laal waaye keneen koo xamante ne ni yaa ngi ci opposition bi wala même boo nekkul opposition nga taxaw wax déet lu tal ni tar fatal ay ni boo ko bindee sax ci sa ci réseaux sociaux sax ñu jël si la loolu nag mooy li nga xam ne lu doy waar loo xam ne man na dugal ci réew mi buuta goo xamante ne nii balaa mu ciy génn musiba dina ni wax Macky Sall mu dello ci xelam président Macky Sall na dello ci xelam te joxe ndigal ñu arrêté xoqatal bi ñi jëm ci président Ousmane Sonko ndax dañuy sonn rek waye mënuñu ko président Ousmane Sonko amul dara dara lo xamne ne gàllu na ci koom ci walum yoon lu wara tax tay ñukay séquestré ñu tëj ko manam mën nañu wax ne dañ ko tek loxo jamono yi ndax mënul génn kërëm kenn mënul dugg kenn mënul génn loolu nak mënuñu comprendre mu am ci réew moo xam ne dañ ne réewum démocratie la mu nekkoon El malik Ndiaye di ki ñu dénk jokko gi ci euh, Pastef euh, nag euh, noonu tam nit daal nañu taal bi kër ki di ay Aïda Mbodj nekk nag njiitu parti bi di ànd bokk ci Yewwi Askan Wi moom tamit nag bi kay nit daal di ñëw ci këram ba daal di taal otom mu mel ni kon ñii di nguur gi est-ce que du dañuy fayu gannaaw ni nga xam ne xew na démb ay kilifa yu bokk ci nguur gi Matar Ba Serigne Mbaye Thiam ak Abdou Latif Coulibaly ñu taaloon seen kër ñi nga xam n nag tey waaw opposition bi jël seen wàllu ci lu ni mel la nag démb nag bi ñuy taal kër Matar ba nga xam te ne dafa den jumaa jumaay euh, Sacré Cœur daal dinañ laalaale jumaa jooju sax ba Corbeillard ba ñu daal di koy taal ak tamit euh, jumaa ja di loo xam te ne yàqu-yàqu yu bëri na fa ba sax sax euh, waral sax ba depuis démb ba léegi jumaa ja kenn mënu faa julli ndax xam melokaan bi reportage foofu la ca jumaay Sacré Cœur mu um kalsum lii Sacré Cœur 3 yàqu-yàqu yi nga xamante ni nemmeeku nañ ko démb ci manifestation yi ma nga fay tege këru ki nga xamante ni moo doon jëwriñ ñuy dénk wàllum sport di Matar Ba moom la ñu taal ba taalaale fa ay woto jumaa ji nga xamante ni moo jàkkaarloog kër ga jot nañ faa yàqate lu bari. bilang ba nag ñu mën koo xayma ci juróom benn woto yoo xamante ni yépp la lakk ba mu def doom woto bi nga xamante ni moom mooy yóbbu néew yi nga xamante ni ma ngi woon ca biir jumaa ja momit dafa lak ba def dom imam Moussa Fall di ko ñaawlu. démb timis ak ge dañu tej jakka ji te fi won julle noddu ñu julle wuñu julli mbolo te bu doon temps normal la ñuy daje parce que fi flam bi awon nako nangu demoon nañ be bëgg jaxla nak ndax groupe groupe électrogène bële nga xam dafa am essence ba fess demoon na ba wara na bokk sax li nga xamantene bu bu euh jéejéej dana gëna yaatu après sa peur soog soga fay ñu ba lak bi jib dafa jappalé miru jakka ji jàppale corbillard bi nga xamante ne euh, daanaka oto bu bees la mu jaaree ci nit ku baax bañ jot ca bërëb ya nag fekk nañ fa ab mini kaaru police boo xamante ne ca biir bëri na lool ay takk der yu saytu kaaraange gi ay agent yu UCG ña nga fa toog ñoom it di xaar ñu jox leen ndogal. ngir ñu mën a bale bërëb ya ñi nga xamante ni tamit ñoo di ferrailleurs yi ñoom it wuyu si nañu ngir rek mën cee jëlee ay feer kilifa diine yi kilifa aada yi ñi nga xamante ne am nañu baat nañu fexe bay wax ak kilifa yi nga xamante ne ñooy joxe ndigal xale yi nga xamante ne léeg-léeg dañuy génn di taal war yaakaar naa fi ñuy mujjee mooy waxtaan te comme waxtaan mënul ñàkk teel koo tàmbali moo gën yéex koo def ñu dëkkee ci Sacré Cœur trois ña ngay xam ne ni li ñu dund démb ci manifestation yi mu nekk ab situation boo xamante ni ñaawlu nañ ko bu baax a baax ndax jàpp nañu ne nekk na loo xamante ni day yàq suñu deru réew. Umu Kalsum li yàq yeeg taal yi kon tàmbalee bari ci réew mi di loo xam te nag fem lu bees ak cocktail molotov yi ni jëfandikoo ñu bari nag ne daan tàng lool may daawul yegg fii ñu déglu ci gëstu Mouhamed Ali mu bax buñ sukkandikoo ci Pathé Mbodj nekk journaliste nekk itam sociologue violence yi nu mel du gulet ci Sénégal surtout ci période électorale wala ci période préélectorale saa su ne depuis ci indépendance yi daanaka ni lay mel. ànd ñu daal ñi nga xam ne ñu ngi gëstu si mbirum senegal bi loolu moom seetlu nañ ko si daal dana am lu tax loolu di am naka la nit mën a nekke ñaar sukki at yu nekk mu ne dinañ lakk réew mi yëpp bu ñu ñëwee nañ fi fekk dóom nañ fi fekk euh, xuyantaan ay ferñeent waaye nañu lakk ba ñu génn si dawalaat tuuti ñaar fukki at yeneen yi ñu doon teew na bu ñu ko génnee tamit 2003 peut-être bu ñu nee ba ay 2033 wala peut-être ba ay 2043 ñu ko fekkee ak euh, ci ni ñu ko fekkee. ci seen ni seen àddina tëddee bu boobaa. waaye nag docteur Bagary Samb jàpp ni leneen lu bees dugg na ci daanaka taal ay kër kilifa. ku ne xam ni violence yàgg na am Sénégal depuis temps wu Lamine Gueye Senghor temps wu Mamadou Dia les événements de 68 ak li xewoon 88 euh, à Thiès ak li xewoon dans les années 93 euh, les les les événements de 94 du 16 février. mais bii yoon dafa nekkoon violence boo xam ni bu yàgg. da nga gis opposition taxawee na les partis au pouvoir wala mu nekk des manifestations yoo xam ni. c'est des gens qui avaient une culture politique maanaam idéologie moo taxoon wala am luñ doon revendre bi yoon violence dafa commencé dem nekk une privatisation.

balaa ñuy egg foofu xëy na am na ay misaal yu ñu mën a seetlu comme

xam ni musuñu ko xam ci réew mi dama ci sax ba dégg naa kilifa ko xam ni xalifa la ni du ma ci waxati ndax bañ naa ko ma saaga donc àgg nañ ci point boo xam ne kon jar nañu seetaat suñu bopp waxtaan créer condition ñu refonder lu ñuy woowee contrat social Sénégal contrat boo xamante ni daanaka dafa mel ni dafa complètement Mouhamed Ali mu baax situation bi am ci réew mi yitteel lool kii di Alioune Tine njiitu African Jom Center di artu neneen nag mbir yi graaw na lool bu te bu defu ndànk Sénégal ci guuta la nar a tabbi waral sax ba moom Alioune di sàkku ci kuréel yu mel ni ñu africaine ak CEDEAO ñu daal di jëkk wax dox ci li xew Sénégal lu ko may rek médecin après la mort lay doona ñu déglu ay kàddoom moom Alioune Tine weesu nañu pour wax ne kii moo am dëgg ak kii moo kii kii amul dëgg li nga xam ne moom moo jàmp tey mooy ñu fexe ba nga xam ne lii di fitna bi am te du jur jàmm li muy jur ñu koy gis ñëpp a ngi ci teg seen bët il faut ñu arrêté loolu il faut lii nga xam ne mooy xeex bi nga xam ne dafa commencé depuis longtemps diggante Ousmane Sonko ak Macky Sall mu ne xeex boo xam ne dañ ko war a arrêté immédiatement loolu loolu mooy problème de fond bi nga xam ne moom la ñu am waaw te nag dafa jot ku nekk taxaw pour que fitna bi ñu arrêté ko toog seet nan la def ba nga xam ne dañuy waxtaan ba jàmm dellu ci réew mi parce que loolu moo jàmm bu daan am crise di nga gis Union africaine jóg di nga gis CEDEAO jóg di nga gis ay chef d'état jóg ñu ñëw di wax fii ak di wax fële Sénégal ci boppam diplomatie fépp foo xam ne ci biir Afrique wala ci Afrique de l'Ouest am na ay problème diplomatie Sénégal day jóg dem dimbali ji liggéey naa ci man ak diplomate liggéey naa ci sax ak président de la République. mais est-ce que réellement euh, toll nañu foo xamante ne euh, soxla nañu intervention ou wala Union africaine euh, par rapport à situation bi am ci Sénégal. amoon na temps bi bu chef d'État yi di jóg violence bi ak crise bi daawul ak ak si fii gis nga crise kenn du ko sous-estimer crise bi nga xam ne ñu ko doon vivre M23 sax eggul woon fii bu M23 te ay diplomate yu bari ñëw nañ léeg-léeg dañuy toog ba nga xam ne eh yàqu-yàqu bi dem na ba kenn kenn mënatu ko kii ngay doog a ñëw fekk nag te le médecin comme on dit <laughs> après après la mort waxtu wii nga xam ne ñun ci suñu bopp am nañu ay difficulté toog pour waxtaan waxtu wii la ñu soxla ndimbal bu Union africaine bu CDAO ak ñeneen ak ñeneen pour ñu wax mu nekkoon euh, Alioune njiit njiitu euh, kuréel gii di Afrikajom Center euh, daaneel ci mbir moom wax ne ñetti nit di jege ne Ousmane Sonko yéen jàppoon dimanche ci Koungheul ci caravane bi nga xamante ne moom njiit Pastef mi nga ko doon amal tudde ko caravane de la liberté ñoom ñett ñoom ñu jàppoon daal di leen di defeere parquet bu Kaolack naka tey suba li neen toppee mooy yor ngànnaay te amuñ ci ndigal ministre de l'intérieur sax Antoine Félix Diome xamle woon dimanche ne ay ngànnaay fekk nañ ko ci biir oto bu Ousmane Sonko nga xamante ne dañ ko mujjee arrêté foofa Koungheul daal di ko ci Ndakaaru yóbbu ko ci këram ñi di ah, takk di def lu ñu mel ñett ñi ci jàpp nag ah, kenn ki chauffeur Ousmane Sonko la ah, keneen ki di bokk ci ay gàddu korom ñetteel bi moom di coordonnateur Pastef ca Vélingara RFM bitim réew. xibaaru bitim réew dañ ci ànd ak soxna Fama John Fama ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ndiogo. Mauritanie lañ koy tàmbalee ak ay manifestation ci mbedd yi foofa ca Nouakchott. Nouakchott la démb la am ginnaaw faatuk ab góor goo xamante ni ab ndaw la dañ ko tegan loxo ci ab commissariat xamuñu nag ndax policiers yi ñoo ko dóor ba mu dee am déet. lu ci mënti am njaboot gi ñu ngi sàkku yoon def liggéeyam ñu fekk ca Nouakchott Mouhamed Diop. ay ndaw yu mer di jori xeer di lakk tam ay pene jano ko police yi len di sanni ay grenade lacrymogène lu ko waral nak ndaw lu doon wuyo ci touru Omar Diop dal di ñak bakanam ginaaw bi ko police tege loxo wa police nak li ñu ci bataxal moy ne Omar mom dama ni jafe-jafe yi ñu yobbu ko l'hôpital la nak ñaké bakanam lol nak avocat ki aduna di maître id Ould Mbarek mom teggi na ko teg fële ñu ngi xaar rapport euh, bo xamanteni procureur bi mo koy def waaye lu ma ci mën a wax déjà mooy que gis nañ ay traces torture daanaka euh, dañ ko dóor gaañ ko ci euh, yaram bi loolu gis nañ ko loolu feeñ na euh, ñu ngi xaarale nag médecin légiste bi def confirmation bi lu leer ba leer mooy que am na lien diggante arrestation bi nuñ ko jàppee ak ñàkk bakkan kooku loolu moom lu wér la mbokk yu mar woy itam di laaj ñu yóbbu mbiri ci kanamu yoon. justice justice justice li nag ñu bari ñu ngi ciy fàttaliku weeru février wi ñu génn ñu tegoon loxo juróom-ñetti policier kenn ki sax ne këpp commissaire ginnaaw bi beneen ndaw bu doon xeex ak yelleefu doomu aadama itam ñàkk bakkanam ci loxoy police. Mohamed Diop RFM Nouakchott. Mohamed Diop euh, Fama bu ñu jógee Mauritanie dañuy dem ba Bénin foofu nag président Patrice Talon moo lu ambassadeur yi réew mu yëpp ngir waxtaan ak ñoom ci wàllu diplomatie Bénin. képp kuy diplomate te nekk doomu beneen nekk ca bitim réew jamono ji ñibbi si nga ca Cotonou di ab ndaje woo xamante ni président Patrice Talon moo ko jiite fi ñuy àddoo ngeen di teewloo. ndaje mi am nag benn ay bés ginnaaw bu ñu dàqee jëwriñ nga fa te mu yoroon wàllum bitim réew ngeen di ceeg diplomate yëpp nga xamante ne réewum beneen la ñu dëkk seen njiitu réew woowaat na leen démb eh, ci 29 mais ngir ñu ñëw fekkee ab ndaje bu yaatu ndaje boobu sax Patrice Talon moo koy jiitee lan cay waxtaane nag poñ ya kenn tudd ko fenn boobee ndaje nag ñu ngi ko tuddee conférence diplomatique tamit nga am ci waxtu woo xamante ne dàq nañu ministre des affaires étrangères ba di Aurélien ak Benoît ministre boobu ñu dàq moom waxal na ko boppam eh, ci média yi waaye gouvernement bi génn benn information officielle jëm ci wàllu woowu ci waxtu wi nag kenn xamagul toogul kan moo koy remplacer mom mi di ak Benassi euh, jërëjëf Awa mbay dañuy dem ci Soudan xeex ba mu ngay wëy ba démb ci guddi donte ni sax ab trève amoon na ngir ñu wéer ngànnaay yi armée bu général Abdel Fattah al Burhan ak paramilitaire yu force de soutien rapide bu général Mohamed Hamdan Daglo nangu woon nañu altine démb ci ngoon daal di wéer lépp luy ngànnaay comme ni ko États-Unis ak Arabie Saoudite sàkko ñoom ñu doon yombal waxtaan bi waaye nag ci terrain bi li ñuy gis mooy ay tiir ay oto yuy blindé di wër eh, ci eh, Soudan ci fàttali nag eh, ginnaaw juróom-ñaari ay bés bi guerre bi tàmbalee ak léegi ñaar fukk ak juróom ci ñeent fukk ak juróomi millions yu soudanais yu nekk foofu leen ñu ngi soxla ndimbal ci wàllum dund. bu ñu sukkandikoo ci mbootaayu xeet yi bokkoon na ci ñoom fukk ak ñetti millions yoo xamante ne ay ay gone lañu. ca Maroc foofa nag euh, benn cellule terroriste bu nekkoon ca Tanger lañu daal di euh, gàntal seen i pexe. bu ñu sukkandikoo ci éléments yu enquête bi ni ñu njort ne ñoo def loolu dañoo euh, nekk ay éléments yu ay d'état islamique te ñu fas yéene woon a daaneel ay structures yoo xamante ni dañoo nekk ca foofe ca Maroc ca royaume ba. nee ñu nag li ñu doon waajal daaneel bëri na enquête bi daaneel ne ñi nga xamante ni ñoo di mis en cause yi dañoo def ay lien maanaam dañoo boole seen bopp ak ay terroristes yoo xamante ni nekkuñu sax ca Maroc ñu ngi ci booli Sahel ak saara nee ñu nag seen mbébét mooy bu ñu noppi woon la ñuy def rek daw génn royaume ba dem fekk seen naataangoo def ko te ñaawteef yooyu njóogu. yegg si ci xibaaru tàggat yaram ànd ceeg Malal Junior Diagne Diagne maa ngi laa maa ngi laa fay Alaaji Njóogu. football lañ koy tàmbali ak fitna yi amoon ca Louga ci demi-finale coupe de la ligue diggante Njàmbur euh, ak Stade Mbour commission juridique bu ligue bi dina àddu ci mbir moom. donte waa lig professionnelle bi organisé woon jongante yooya ne jël nañu bépp matukaay ngir lépp jaar ci yoon ci wàllu organisation ak ci wàllu kaaraange. teewut fitna judd na foofee léegi noo nga xaar ñu yebaloon foofa ci seen ay ndaw ngir ñu ma leen a jébbal la nu ca gis ci kayit tënk ko nu jébbal ko kuréel gi yore wàllub euh, juridique gi ci ligue professionnelle bi ngir mu atte am sattu faal ni nag lenn du leen tere doxal seen programme jeexal ko ni ñu ko jàppe woon ci weeru sulet gi di dikk moom mooy secrétaire administratif bu ligue professionnelle. ci bu ñu ñaawlu la lool parce euh, ñëwee ba war def demi-finale pour que ñu dem ci finale bi nga xam ni boobu ba léegi ñu ngi doon wax ni on a mis pris toutes les dispositions nécessaires on a jël nañu dispositions yëpp yu si war yëpp envoyé nañ foofu un superviseur envoyer nañ fofu benn commissaire yépp pour que véritablement renforcer nañu la sécurité Nous nañu euh, une lettre effectivement euh, lettre boo xam directeur de la sécurité publique demi finale bi amoon euh, Louga enjeu la enjeu bu sportif enjeu sécuritaire enjeu populaire la maanaam dafay drainer du monde dafa am ñu bare ñuy ñëw parce que ñaari ñeenti équipe yëpp dañu am gannaaw donc jël nañu suñu disposition nécessaire pour renforcer nañu sécurité bi def

ba ñu demee ba 83 e troisième e minute euh, violence am ba mujj gi match bi match bu mujjul àgg stade Albouri Ndiaye violence yooyu mu jóge fi bu laajee également euh, ñi nga xam ni ñoo koy indi en tout cas ñu ñu sanctionné leen kooku wàllu commission discipline dañ ko def euh, daañu en tout cas lu wër bu wër boo daañu jox ay instruction commission bi nga xam ne moo koy moo chargé du loolu muy commission de discipline ñu condamné ko xool ñoom lan la seen texte yi wax pour que véritablement bu laajee sanction ñu ñu def ko ci Euh, sanction da ca war a am ndax fitna baaxul ci stade yi ndax mm. dafay dajale ay ñu ci bëri mm. jàpp ne ci googu la jongante sax Teungueth moom qualifié na ca final ba noppi ndax dafa daanoon ci euh, demi final ga waa Casa Sport ñaari bal si benn Ligue 2 itam daanu ko jeexal ëllëg njàmbur googa sax nuy wax ni moo doon jonganteeg waa Stade de Mbour moo am coow ñooy waa Dakar Université Club bi yoon jëm ci wàllu championnat euh, boobu Ligue 2 nag Agel mu ne ca kaw toppate moom Wakam ak waa Oslo wax léegi li soxal wàllum basket euh, ak président fédération bi nga xamante ne euh, tabaat nañ ko moom maître Babacar Ndiaye nee na mbëbëtam euh, mooy gagné coupe d'Afrique bi war a am ci Rwanda. ci jigéen ñi laa doon ñu war ko jàpp ñaar fekk fan ak juróom-ñett ci weeru sulet ba juróom benn fan si weeru août moom maître Babacar Ndiaye ni tàmbali na tegi jéego ngir fexe ni ba gaynde Sénégal yi jigéen yi yore lépp lu nu yittewoo ngir la nuy sàkku ca ñoom ak di ko xaar ñoom mooy ndam nu indi ko bu nu jógee ca Kigali googee Soda Thiam gannaaw bañ ko tabatee ca bopp fédération sénégalaise de basketball maître babacar ndiaye nag daal dinay teg ay gëtëm ca fa nga xamante ni fa la liggéey bi gën a jàmpee mu di waajal afro basket ñeel jigéen ñi nga xamante ni ci njeextalu weerub sulet lañ ko fas yéenee amal dañoo waroon dugg regroupement externe lañ war a def war nañ dès mardi yónni document yi ministère de sport pour ñu mën a d' abord jox xale yi billets ñu war a ñëw pour ñu ñëw je pense que le 10 mu juumul si lañ war a du commencé regroupement si lañ war a dugg regroupement externe loolu moom mooy mooy première bi. ci loolu sax dañuy samp ab laaj lan la équipe national féminine bu basket bu Sénégal war a def ngir mën a jëlaat raw gàddu gi technicien bi di Idrissa Sissoko di ci jéem a àddu. jëliwaat euh, ndam li ci jigéenu euh, équipe nationale Sénégal yi. la ca war mooy euh, ñu teel a préparé wu. teel a defaru ndax équipe bu ndaw la. parce que boo degee ma ne équipe bu ndaw la ci tour Sénégal équipe bu mag la. mais équipe bu ay gone lañu. te dafa laaj liggéey bu bari. donc teel a taxaw teel a entraîner yu bëri jël ñi ñu war a jël ñoo bu ñu defee scouting bu baax def un bon casting jël ñu war a jël liggéey ci liggéey bu baax defe naa dinañu war a mun a yegg ci podium bi quoi. ñaar fukk ak juróomeelu édition afrobasket ñeel jigéen ñi nag ñu ngi koy amal fukki fan ak juróom-ñett ci weeru sulet jàpp juróom-benn fan ci weeru u ca Kigali. ña qualifié ba noppi ci boobule eh, jongante moo di Nigéria mi ko jëloon Rwanda mi dalal Mali Cameroun Sénégal Mozambique RDC ak Égypte. tubaarkàlla Ndiogo gannaaw laa joomal lu ma kaa doore. Mhm. noppi na kon pare nga. waaw léegi moom maa nga def kaa doore fu nga ko doore woon <laughs> jaajëf Diagne merci. Kenkayri AAD moo leen di may li ci yéene kaay yi. li ci yéene kaay dañ ci ànd ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf caravane de liberté bu Ousmane Sonko bi far na mujj ci caravane de la moom jiital parti Pastef li di Ousmane Sonko la mu namoon mu di jugee si ci Pastef jël yoonu suuf ci Pastef ñibbi si Ndakaaru ci Pastef force de défense et de sécurité yi ñoo ko dogale ci Pastef dugal ko ci seen wata ci Pastef indi ko Ndakaaru ci Pastef ni ko force

Tribune yéenekaay bi mi ngi ñuy xibaar ne am nañu ay xibaar yu leen xibaar ne bi bakkan rotee ca Kolda ci la kilifa yi réew mi jëlee dogalub dakkal caravane de bu Ousmane Sonko bi ci la gendarmerie tegee loxo benn wata bu bokkoon ci koowaam wata boobee gendarme yi jàpp nee nañu dafa bëggoon a rocceeku ci koowaa bi dem Gambie alkaati teg ko loxo ñooñ ko jàppee ci village bu naan Thiako nekk ca Koungheul ci lañ ko jàppee génne ko ci oto bi dugal ko ci seen wata indi ko Dakar am na yeneen ñetti nit yu mu àndaloon moom Ousmane Sonko yéenekaay bi ne nañu ñooñee bi leen alkaati yi jàppee dañu leen génne ca wata leen Kaolack tey jii ci la ñu war a jàkkaarloo ak bi caravane de bi Ousmane Sonko bëggoon def lu gàttu fan la direct news bind ne force de défense et de sécurité yi ñoo freiné Sonko journal bi tegal ñu ci ne force de défense ak ni ñu defee ak Ousmane Sonko jàpp ko mbogo mbogo ko indi Ndakaaru ci li kenn yëgul war naa tax ñi koy jàppal tànk moom Ousmane Sonko ñu naan leen les patriotes ñu xam ne seen doole des na ci loxob état bi ñu bëgg weñ ak rapport de force bi ñu ko bëgg tegal libération cité kër góor gi isolé ko fa bolokis boobee ñu ko tegal toogaanu ko mënuta dem mënuta dikk libération ne nañu moo jur démb fitna ci cité kër góor gi ak ci ay quartier yu nekk ci ndakaaru ay manifesté ci diggante ñooñu Ousmane Sonko yi ak force de défense ak sécurité yi Vox Populi nañu rapport de force bu tar la gis démb ci dëkk bi Sud Quotidien dañu xamal ci xët njëkk ne ndakaaru mi ngi ci fitna ndax Ousmane Sonko mi gaañi tëj këram bloqué gi ko bloqué biir këram journal Le Quotidien li mu ci gis mooy couvre bi nee nañu bi ne dañuy dem cité kër gi seeti Ousmane Sonko këram yegguñu alkaati sàkkat yi nañu tere leen rekk yam ci dañu leen a dóor ay grenade lacrymogène ba ñu xool benn place le témoigne nañu buum dellu na ca boy boy ba fit ci ci ndakaaru Walf Quotidien doole ci ne ay seen de kawo gis démb ci dëkk bi lise ku ne ko ak ay responsable yu ànd ak Macky yu ñu siibale seeni kër dem di leen taal taal nañu kër ministre Matar Ba ba taalaale fa ay wata yu mu moomoon ak yu mu moomul woon ba moom Matar Ba lise ko bi watt bi ñuy dugalub néew sax bu ñu koy robi mu di corbillard bu jumaay Sacré-Cœur 3 yi corbillard boobee yi dañu koo taal source nañu bu weesoo Ousmane Sonko mi ñu def livraison à domicile am na fanweeri nit ak ñeent yu ñu jàpp ca Tambacounda am fukki nit ak juróom yu ñu jàpp ca Kolda am na ñetti nit yu bokk ci parti Pastef yu ñu jàpp ba garde à vue ndax nee nañu ba ñu leen di jàpp dañoo fekk ci ñoom ñeenti jaasi ak ay matériel militaire nee nañu dañoo bokk ci ñi doon caxat-caxatee ak di yàqate travaux yu BRT yi le témoigne nañu bu ñu deful ndànk li xew ci dëkk bi duñu xam fan lay yem ndax jeunes yi ànd ak Macky mu di waa ko gère li ñuy wax mooy jàmmu jeex na yëf yi léegi dóor fayu la Moussa Sow ak i gaayam di wax ci yéenekaay bi ne ay républicain la naam waaye lu ëpp tuur gaañu ginnaaw xeex la woote dinañ leen ci fekk si ba mu doy sëkk dem ci ak ñoom luñ ci góobe gar ko Abdoulaye bu Bounama Sall secrétaire général des jeunes socialistes organisé woon ca Daara Jolof ci jamono jooju journal La Tribune mi ngi ñuy wax ne jigéen ñi jàppal tànk Macky di les femmes de Benno Bokk Yaakaar li ñuy sàkk ci président Macky mooy mu sampaatum dëndam doon candidat ci élection présidentielle yi 2024 ngir beneenu mandat journal bi nañu ñoom jigéen Benno Bokk Yaakaar def nañu seen résolution bu ñu tënkee li tax ñuy sàkku ci Macky mu def deuxième Kaïry AAD moo leen doon may li ci yéenekaay yi. yi gis mbokk yi ñu egseeg yéen léegi ci pàcc mujj ci xibaar yi di gis-gis tey nag li ñuy waxtaanee eh, di fitna gi nga xam ne moom la ñu nemmeeku ci réew mi fan yi eh, ngir waxtaan li nu mel nag dañ ci ak eh, Babacar Dione di taskatu xibaar nekk directeur de publication bu li quotidien Babacar ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay El Hadj Ndiogou. daañu ci càmm ak beneen taskatu xibaar Pape Amadou Fall nekk directeur de publication du magazine La Gazette Pape Amadou ñu ngi lay nuyu. yow sax lay tàmbale euh, gis nañu li xew ci réew mi fitna taali oto euh, taali kër euh, ba jàngat ngay def ci loolu le dañ naan lu ñaaw lu warta am lu ñu war a war ko sip. ndax xajul ci li nga xam ne moom mooy réew mi ndeete ay dënn jóg na ay eh, xel jaxasoo na ñu fitna eh, fitna ju ñu tollu eh, dara jaru ko te buñ ko fi bëggee samp moom dañ naan rek ah gis nañ la xew yi gis nañ la xew Burkina Faso gis nañ la xew yi ak feneen ak feneen ak feneen dañ daan wax ni ah loolu loolu mënta egg ci Sénégal buntu baa ngi nii ñun ñooy mën a aar suñu bopp ñun waa Sénégal keneen du dikk aar ñu wala bokk euh, nu dund euh, musiba bi nga xam ne rek moom la ñu gis ci li nga xam ne moom mooy dëkk yooyu ñaaw na doy na waar. Mm-hmm. lii de bu être li ko indi mooy euh, mbirum Ousmane Sonko ak fatt gi ñu fatt këram est-ce que loolu dogal boobu jaadu woon na ba indi li nga xamante ne moom lañ nemmeeku tey ji waaw xam nga dogal dañ naan. dafa am noo xam ne bu taxawee ci li nga xam ne moom mooy réew dogal boobu dañ cay bàyyi xel dogal ata dogal dañ cay bàyyi xel la la tax ñuy war a war a bàyyi xel dogal boobu rafet na gën na ñaaw na war na warul loolu lépp dafa am pon xam ni fa lañ koy attee moom mooy ci kanamu yoon rek nag yoon rek lañu am ci réew mi ak lu mën a xew yoon kese la ñu am boo nga xam ne ku ñu woo ak noo mënti toll kenn mënu ci mucc bu fekkee da nga ne ñu dugg Sénégal nga. Mhm, mais moom dañ ko woo mu ne euh, wuy jiwul Ousmane euh, ci mbirum àtte bi doxoon diggante mag Adji Sarr. moo tax moo tax it gis nga li mu parce que bu fekkee dafa am ñoo xam ni. Euh, ñoom nga jël def leen sa cëslaay def leen sa tax euh, ñoo xam ni euh, gëm nga ni saa buñ la woowee ñu doon sa barrière bis bu ko yàlla joxee réew mi moom ndax loolu dinañ ko mën a dunde nii ndax bu boobaa it mën na am ñoo nga xam ni yàlla mën na leen may doole mu néew ak a bari ba buñ ñu taxawee ne du ñu wuyu li nga xam ne moom mooy ci wàllu àtte fitna yee li nga xam yeewu ci li nga xam ne moom mooy yéew réew mi mm-hmm. euh, xam nga lan mooy jaadu mm-hmm. nit soo bokkee ci li nga xam ne moom mooy am réew mooy tënk nga ci li nga xam ne moom mooy réew mi su fekkee dama ni jullit laa bu yeewu mënumaa yeewu suba te doon te du ma julli kon bu fekkee da ngaa bokk ci li nga xam ne moom mooy euh, citoyenneté citoyenneté ba ñu ne nii lañ ko tëggee nañu tëgg ci tayante dang ci dang ci koy wuy te seet nag neneen no nga xamni no nga koy sopparñee mhm. waye duma taxaw ni déedéet du am mhm. nañ ñëwaat ak yow papa amadou fall wéyal waxtaan wi laataalaan lool dañuy and ak babacar john babacar yow euh, ban jàngat ngay def ci euh, fitna tension bi nga xam tane nemmeeku nañ ko ci réew mi ah ala njogu man nañu wax ni li li li policier yi wala force de l'ordre yi nekk kër ousmane sonko loolu mooy li mujj mais ñëpp gisoon nañu muy ñëw depuis 2021 nga xam ni kàddu yi déjà nekk na kàddu yoo xam ni kàddu violence la yu agressif ñuy demati ba nga xamee ni euh, dernier événement yi am mooy nekk Ziguinchor Ousmane Sonko nekk Ziguinchor daal di ne euh, damay ñëw Dakar donc la grande marche cooki final am na journaux yu ko bind sax cooki final Dakar waa léegi nag euh, léegi policiers yi dañ koy bàyyi moom mu ñëw daal def cooki final Dakar ba nga xam ni 14 morts wala 21 morts yi ñu amoon 2021 ñu man ko amaat du nekk moo tax damay comprendre ni que ni kat force de l'ordre yi anticiper pour bañ loolu am parce que à chaque veille de procès nga xam ne bu ñu ko convoqué ci affaire Adji Sarr wala même Mame Mbaye Niang li ko seqoon ak moom toujours day génn Ousmane Sonko woote nit ñi pour ñu génn def résistance gis nga démb li mu woote encore bu fekkee discours boobu si moom la jógee démb donc damay yaakaar ni. mais fatt këram gi tamit ñu fatt def blocus kenn du dugg kenn du génn du mën a gis kenn kenn du ko mën a gis kenn du ko seet seeg yooyu loolu tamit est-ce que. Euh, jaadu na ci dëkku droit loi loi mayu len ko man hmm. nañu ngi bàyyi man lima waxone moy mooy que les policiers les forces de l'ordre man nañu nek en alerte bagn par exemple xalé yi di ñëw fofu di fa def euh, di fa def rassemblement hmm. wala bokk indié lolu man na nek en alerte mais nak comme fi mu nekk nii tegaluñu ko dara xam nga c'est là aussi euh, état bi fa la amé problème dafa bëri ay tergiversation yo xamni état bi daf ko def manam ay hésitation yo xamni état bi daf ko am ci affaire Ousmane Sonko parce que bu fekkee yow da nga ko jiñ kat dafa yor dafa yore ay arme da nga koo jiñ leneen mais procureur bi nag kii autosaisir mhm. mu nekk benn dossier boo xam ne sur la table boo ko defee yoon euh, may na may na les forces de l'ordre ñu def lu ñuy def mais yow à part li nga xam ni mooy affaire u Adji Sarr bi ah délibéré bi verdict bi ñu koy xaar le premier mais amul leen loo xam ni mi ngi ci baatam. kon yow da nga gis seen traitement de faveur daf mel ni genre traitement de faveur bu ñu jagleel euh, kii di Ousmane Sonko ci. mais mais El Hadj Ndiogou ko wax léegi ci wolof ci français man ni gis nga Ousmane Sonko. ay kàddum yu bëri ay waxam yu bëri dafay nekk wax yoo xam ne dafa jéggi yoon maanaam lu ci bëri ci li muy wax am na ñeneen bu ñu ko waxoon ba léegi ñu ngi ci kaso mais moom dañ ko bàyyi nga xam ne muy wax ba au fur et à mesure que lu ñuy gën a dem ay ñi ànd ak moom dañu dem ba yaakaar ne Ousmane Sonko kenn mënu koo lal kenn mënu ko dara yaa ngi dégg sax euh, porte parole El Hadj Malick Ndiaye ci benn émission bu mu taxawee daal di ne ceey bu ñu prononcé verdict mais xoolal cette manière ceey bu ñu prononcé verdict loolu nga koy wax yow justice ñu ne tekk la déglu chaque jour mu am des déclarations xam ni de défiance vis-à-vis de l'État vis-à-vis de nos institutions mm. loolu nag tax na aujourd'hui ñu toll foo xam ne ñu ànd ak moom dañu yaakaar ne Ousmane Sonko lu ko neex def ñi ànd ak moom it lu ko neex def moo tax ñu dem léegi bay attaqué kër kër jàmbur mm-hmm. te maa ngi naqaru nag pour kii que euh, waa waa waa waa APR seen liggéey du nekk quand même attaqué këru këru waa Ousmane Sonko mm-hmm. ñoom je crois que bu fekkee ñoom dañu ne ay républicains lañu dañuy woote yoon mm. mën nañoo comprendre ñële ñuy ñañ ne leen lii nga def du yoon mais ce serait malvenu ñuy gissat aussi mhm. une autre partie de la société ñoo xamni Macky Sall lañu andal dem di ay kër jambour mhm. lolu aussi ko fenn. Mhm. Euh, ak yow ci waxtaan wi euh, ba pap Amadou Fall gis nañ euh, contre attaqué contre attaque ak fayante bi mu mëna parce que xam nañ fu muy eh, xamul fu contre escalade bi ñu ko nan ñu y a ci des dam ak dal ci réew gis nga dañ ne tutsi yi ak utu yi mooy waa Rwanda. 1994 hmm. boo ko junjee rek ku nekk sa dina daw. Hmm. ci girawaal gi nga xam ne moom moo fa amoon. waaye dinaa ñëw ci fi Côte d'Ivoire sax euh, lu ñu gën a jege mooy Côte d'Ivoire gis nañ la fa xewoon tam. 2010 ba yooyu yëpp ay réew la yoo nga xam askan wa kese moo doon jàmmarloo mm-hmm. kenn raxu leen mm-hmm. askan wa kese ñoo mm-hmm. doon jàmmarloo ci noonoo mbañante waaw kon bu mu amee wesundi yooyu weesu am ci loo xam ne dund nañ ko yàlla daf ma may dem naa liberia dem naa Centrafrique Côte d'Ivoire kooku ngay wax teg naa fa tànk lépp jamono yoo xam ne askan la ñoo nekk ci loo nga xam ne kenn xamul lan waaw Sénégal dañ daan wax ni ah lii du fi yegg waaw ñaanu ñaanu ñaanu sëriñ si alhamdulilahi rabil alamin ah bu yegg si guli dund na te xeeñ na lool ndax lii nga xam ne moom la ñu dund démb gis ay kër yoo nga xam ne à la limite da naan ñii kat parce que ay nit ñoo xam ne dañoo bokk bokku ci nguur gi rek ñu ne tey ñu faa faagaagal leen ak seen i njaboot loolu kenn xamul lan la kon di ñuy dund fi mu toll nii nañu delloo si xel yi weesagul de kilifa yi nga xam ne dañ daan wax démb ak bërki démb buñ ci tay yi parce que seen warugar la tas la woo nga xam ne yàlla da leen koo teg képp ko nga xam ne war ngaa mën a yëkkati li nga xam ne moom mooy sa kàddu ne buñ yegg war ngaa mën a gëdd li nga xam ne moom mooy sa kàddu. loolu mm-hmm. moom la ñuy wax. Mm-hmm. mu mel ni instant bi ñuy waxee nii lii mi ngi xew. am papaam ah? mu ne instant bi mi ngi xew mbir yi mi ngi xew jamono joo xam ne ñu ngi wax dialogue national bi nga xam te ne ah, suba la war a tàmbali xëy na dialogue boobu mën na nekk occasion boo xam te ne lii yëpp dañ ko fay waxtaanee ba nga xam te ne daañu ko weesu daañu ko dépassé. gëm naa ko gëm naa loolu El Hadj gëm naa ne dialogue mooy waxtaan

Macky Sall war naa mën a toog ak Ousmane Sonko. Mhm. oh loolu la réew mi bëgg Sall toog ak Ousmane Sonko waaw. Mhm. la war a wax ñu wax ko ci nga xam ne moom mooy taabal ji dialogue bi foofa lay élevé foofa lañ ko soxlaa mhm. waaye su fekkee ku ci nekk danaan sa moroom bu ma la jekkoo tey nga dee. kan lañ ciy génn te ñoom ñoom ñoo cay dee de. askan bi gis ñoom ñoo ciy dee. Mhm. Macky Sall nag tàllal na loxo comme def na li mu war a def nañ wax nañ wax ngir yàlla kese tàllal na loxo ñi ko war a dégg nañ ko déglu ñu ànd ñu toog ci li si nga xam ne moom mooy taabal ji dañu teg ngannaay ji daal kër mënut a régler problème

man dama yaakaar ni bu fekkee Ousmane Sonko ni ñu àndal dañoo yaakaar ni seen mbir doole lañ koy faje bu leen bàyyee loolu jàll ce serait un précédent dangereux pour ce pays man je ne suis pas un extrémiste je je me considère comme un homme modéré maanaam dama yaakaar ni yoon buy daw ba nga xam ni verdict moo des on a l'impression que c'est tellement organisé que boo indee coow nga dégg un membre éminent de la société civile ko ànd nag société civile daal di genn daal ne na Union africaine wax na wax lolou c'est euh, man daf may jox que ni man mi analyser les faits ngeen may woo dama gis ni li yëpp c'est préparé. préparé jaxase toj ay keur xex am nga ne nag nañ leen woote waxtaan pour que ñu dindi affaire justice lolou la yakkat ni ce serait dangereux pour le Sénégal. parce que justice mi ngi def liggéeyam ba toll fi moy néewal doole justice que ni liggéey na ba toll fi léegi nañ ko tek fële nañu waxtan Macky Sall na tek lépp yoon fofu la àndul ak niy wax Sénégal nañu waxante deug nañuy waxante dëgg mooy lan. bu mhm. fekkee à chaque fois Macky Sall deful lu yoon dañ ko koy wax ci affaire Karim Wade ci affaire Khalifa Sall di ko wax heure bu deful yoon parrainage bi bu Ousmane Sonko deful yoon naka ko nit ñi wax. nañu ne Ousmane Sonko kaddu yi nga xam ni moom ngay tenir depuis ñaari at di wax ni na ñu nañu na ñu dee bakkanam wala sama bakkan yegg ba nga xam ni violence verbale boobu moo dem ba indi violence physique. loolu nañ ko ko wax. parce que moom day wax ne violence bi c' est une réponse à euh, une injustice euh, bu ñu koy teg ah, injustice bu jógee ci nguur gi loolu yëpp moo indi lii. bu fekkee loolu la gëm ñi ànd ak moom gëm gëm gëm loolu léegi nag ñun ci état rek la ñuy dellu ñun yaakaar l' état nos institutions nos forces de défense et de sécurité daal ñuy aar parce que ñëpp xam nañu ni xeex politique am na mais xeex nag dans la violence loolu gisuñu kenn ku ko nangu xam nga barki démb pour jeexal mhm. maa ngi def benn émission ak Elentine euh, ak euh, Mareba Touré ñu ngi mhm. joxe exemple Nelson Mandela daal ne Nelson Mandela 27 ans lañ ko jël daal koy tëj kaso bi ñu ko tëjee kaso. Mhm. mais bi mu génnaatee moom moo nekk président wu Afrique du Sud ba nga xam ne fa lañ ko doon noote. je crois que xeex am na ak na ngay xeexee mais taxaw nag daal di ne nag bu ma buñ ma bàyyiwul bu ñu arrêté wul dossier bi judiciaire bi dëkk bi day takk je crois que loolu man damay delluwaat suñu institution suñu justice pour nous protéger Sénégalais parce que loolu bu jàllee pour man ce serait un précédent dangereux. Mmh. Sénégal. Mmh. jërëjëf euh, Babacar ñi koy sant di koy gërëm bu baax moom Babacar Dione euh, di taskatu xibaar nekk directeur de publication bu lii quotidien del tam di gërëmaat euh, Papa Amadou Fall moom tamit di taskatu xibaar nekk directeur de publication bu la Gazette mbokk yi mu nekkoon gis-gis tam xibaar yi El Ndiogou nekkoon ci micro